أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم موكي جينا وبنيو لن نيو تي نيو بغنا تد نيو بغنا سل دي نيو الإسلام نيو دل سيوات أجيين تي سين اميشيون بو مكبي تي شين بو مكبي دي تي ام بي ايفنس فسييني اندك يين تي اميشيون بي ني وخ خمسة ديني اقيو خيو جامنو ا تي نك ñu bëgg a dellu siwaat rek ci li nga xam ne ñun ñëpp képp ku yàlla bind ku mu mën a doon ci ñun wàcc gi nga wàcc suuf ak taxawaay bi nga war a am ci kaw suuf nga xam ne moom la la yàlla sant nga war ko doxal ci kaw suuf ak it nag yàlla ba mu ñu wàccee ndax daf ñu booyal rek sànni ñu kaw suuf wala dafa am lum ñu booleel wala dafa am ñum ñu booleel wala dafa am lum ñu joxoñ kenn ku nekk ci ñun nag war a delloo si sa xel xam ne yàlla wàccewu woon rek sànni ñu noonu ci kaw suuf waaye yàlla bi mu ñuy wàccee ci kaw suuf moom buur bu maanu bu sell boobu bu tedd boobu bu xam jaam bi daf ñu boole ak yonent boo xamante ne nii moom la ñuy roy ci léppam waaye mu boole ñu itamit ak téere boo xamante ne nii bu sell la jamono bu nekk ñuy refeerewu ci téere boobu ngir xam fan la ñuy teg suñu tànk ci dunduk àdduna gi nga xam ne gu gàtt la waaye ñu xam tamit lépp lu ñuy jëf ak jëf du mu mën a doon lan moo ci taxawaayu alquran lan moo ci taxawaayu diine mbokk yi dama wax ne jamono bi coow lu bari li dama wax ne problème yu bari yi dama wax ne feebar yu bari yi dama wax ne dee yu gaaw yi dara indiwu ko lu dul rek teggi gi ñu teggi sunu tànk ci alquran kenn ku ci nekk ut sa yoonu bopp boo xam ne yow yaa ko fental sa bopp wala boog ay nit fental la ko nga ciy jaar bàyyi li nga xam ne moo taxoon yàlla wàccee ñu fi jaam bi nag lii fam ak li nga xamante ne ni moom la war a wàccoo ak boroomam digganteem ak boroomam mooy lenn lu ko yàlla joxoñ rek mu xam lan la ci yàlla jublu yàlla nag dafa waxoon ne topp leen yonent bi wa in tahtadu wa in tutihu tahtadu mu ne bés bu ngeen ko toppee rek da ngeen di daal di jub xocc yonent boobu nag bi ñu laajee yaa Aïcha ne ko kan mooy yonent boobu sallallahu alayhi wa yaa Aïcha dafa waxoon ne xuluquhu quraanul karim yamshi fil ard mu ne bu ngeen bëggee xam yonent bi daal jël leen téere alquran bi rek bu ngeen ko xoolee rek di ngeen xam kan mooy yonent bi sallallahu gisuñu yonent bi waaye gis nañ ne alquran moom du fi jóg benn yoon te alquran yi tamit bàyyiwul dara lépp lu doomu aadama war a jëfandikoo digganteem ak boroomam digganteem ak ñaari way juram digganteem ak ñi ko yàlla booleel ci kaw suuf mu wara and ak ñom di ay doomu adama ni mom waaye digeentem ak jëmmi boppam moom yàlla farad naa kitab min shay'in bayuma ci téré bi dara lepp andil na len ko moo bo delo delloo ci alquran nga delu suratu baqara aya 30 subhanahu wa taala di ñu jangal fofu lan mo sabab doomu adama wacc ci kaw suuf sabab bi du dara ludul ne yalla daf ñu waxoon ne sen baay bi nga xamne moy Adam. dama ko jël jox ko moom ak soxnaam dëkkuwaay dëkkuwaay bu neex dëkkuwaay bu sell dëkkuwaay boo xamante ni kenn du fa feebar dëkkuwaay boo xamante ni kenn du fa wax wax ju sew dëkkuwaay boo xamante ni kenn du fa tëfli bi gën tuuti sax duñ ko fa def amul nelaw amul gëmmantu amul dee te foofu mooy aljanna yàlla ne aadam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha haythu siqtuma ولا قيس سقطما لولا نيخ بير الجنة لكال لولا نيخ نانال واي ولا تربى هذه شجرة فتكون من الظالمين لن رجل على تري موي غرب جينغا خامنتيني ني موي سجدة القلد غرب جي دال بوكو لال واي مبوكي يالا بولي ادم اك كوني يوخ شيطان موي ابليس te iblis dafa taxawon ne yalla adama mi ak njabotam waxtu wu jot dina taxaw ci sen digeunte galankor len ba yon wi jëm ci yow dina len galankor ba duñ ci exi واي فاشلهما شيطان انها فاخرجهما مما كان في فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ادول ادون ولكم في الارض مستقر ومتى الى عين فتلقى ادم من ربهم كلمات فتاب عليهم انه هو تاب الرحيم يلا نما واتي ادم جيناو بامكو تري نكو الجنه اك ياتو واي بي اك لا فا نيك اي خيول بول لال غرب جي بامو لالي غرب شيطان ترومبي مو ادم أنا كيكو سوف wàccee njabootu aadama ci kaw suuf waaye comme ni ma ko waxee sànq yàlla ñu de yàlla ne aadama uhbitu wàcc leen jami an mboole seen waaye nag fa man tabi hudaaya képp koo xam ne topp na ma man yàlla falaa xawfun alayhim bu mu tiit wala hum yahzanuun te bu mu jàq waaye képp koo xamante ne nii nag wàcc nga yoon wi nga xamante ne nii mooy yoonu njub wi kooku moom bu ëllëgee dina si ci man dina kafaru ulaika asaabu naar hum fi xaaliduun yàlla ne aadama tabi nag toppal yoon wi nga xamante ne ni mooy yoonu siraatal mustaqim te dama koy faral di wax ne a siraatul mustaqim mooy rek alquran mbokk yi bu ñu xoolee jamono bii lan moo tax mu jafe lan moo tax ñu dem ba benn moment boo xamante ne nii sunuy ndaw sax kenn ku nekk ci ñun jàpp nga ne li lay dundal nekkatul ci kaw suuf wala yow fi nga dëkk bàyyi koo fa tey bu ñu jëlee rek ci li xew ci actualité ñu xool ko méngale ko ak diine lan la ci yàlla waxoon est-ce que jaadu na ci jamono bi kenn ku ci nekk nga ne man damay dem bu ma dee baax na bu ma dundee baax na waaye man na sama àdduna baax waaye olof yi dafa am lu ñuy wax nee nañ njariñ loo fekkee xaj na wax bu yàqu la waaye itamit wax bu jara bàyyi xel la mbokk yi est-ce que dina jaadu ñun ñëpp ñu bàyyi fi alquran delluwaatuñu ci alquran ba xam ndax yàlla am na lu lum ñu dencal loo xam ne fii ñu nekk nii buñ ko gëmee gëm alquranul karim gëm borom bi gëm tamit yonentam bi ak seeni wax est-ce que loolu wér nañu ne buñ ci tegee suñu tànk du ñu am sax lu ëpp doole la ñuy uti fa ñu jëm moo tax loolu dinañ ci ñëw ci alquran dinañ ci ñëw indil leen ci ay repères yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun damay wax ne ñun dañu bëgg émission bi ñu delluwaat ko ci alquran ndax bu ñu waxee xam sa diine te delluwaatuñ ci alquran du ñu mën a am ay repères yoo xam bu ëllëgee dinañ xam fan la ñuy teg suñu tànk ba ba ñuy egg ci yàlla moo tax alquran daf ñu indil naka la ñuy jaamoo borom bi waaye daf ñoo indil itamit naka la ñuy toppee yonent bi waaye daf ñoo indil tamit suñuy jur naka lañu leen di toppee waaye daf ñoo andil tamit nan la ñuy toppee sëriñ si ñuy àndal nga xam ñoom la ñu yàlla booleel waaye alquran daf ñoo indil tamit ne ndax wërsëg dañ koy forcer wala wërsëg yàlla mooy ki koy joxe ak naka la koy joxe loolu lépp amul dara lu ci alquran bàyyi. wax naa ko sànq maa farat naa fi kitab min shay'in yàlla bàyyi lu gën a tuuti virgule ci alquran te waxul ak ñun li fi nekk kay mooy est-ce que gëm nañ ko ñu koy jàng nag. ñu koy jàngale ñu ngi koy tari ñu ngi koy diwoo saafara ñu ngi koy bind ay téere Sénégal moom damay wax ne boo bëggee xam bu xaaba bi gën a màgg xoolal ko yor téere alxuraan lam ca yittewoo rek mooy nu muy def ba xaalisam bari lam ca yittewoo ci alxuraan mooy nan laay def ba tromper ndaw si lan la yittewoo ci alxuraan mooy nan laay def ba mën a jaar ci kaw nit ñi te kenn du ma comprendre ñu ci ëpp ci ñun loolu la ñuy doyee alxuraan wala saafara bi naa ko naan wala téere waaye alxuraan du loolu de alxuraan dañ ko indi laa ba fii هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يلا نينا القرآن بموي سين بوين دو روبير ndax aduna bii bu ma leen fi wàccee woon te joxuma leen point de repère da ngeen di réer réer googu nag moo ñu jàpp ba kenn ku ci sa doxalin méngoo wërtal ak alquran moo kenn ku ci nekk sa jëfin fa ngay mujj du baax تيالا دا فو ومن اراد ان ذكري فان له معيشه دنكا ونحشر يوم القيامه احما يالا نينا كيب كو جيل سما لوخو سيبيكو تي نوي ادونا دي دوخه دوخالينو ادونا يالا نينا دينا جيل تيري جي خبو جي سوف با بو ليكاتي لي غي ليك دو خام لان لا يالا نينا تي بو الليغي بو ديكي ديغا غومبا تي بو الليغي ديغا ديكي ديكي واي بو ميتي موتاخ مبوكي لي خيو تي جامونو nga xamne tay dama wax ne émission bi xajna lepp du ci xaj waye émission yi di ñew dinañ ko gën a développé surtout yéen jeunesse bi laay waxal surtout yéen ndawi jamono yéen samay morom yéen ñi nga xam maag yéen ñoo bokk génération nga xam ne tey mën naa wax ak yéen ndax man yàlla may na ma ma xool alquran gëstu ko xam ne yàlla wax na ak jeunesse bi ndax boo demee ci benn suura bu ñuy wax suuratu luqmaan nga jàng aaya yi nekk suuratu luqmaan di nga yëg ne ndekete yàlla wax na ak ndaw ñi di nga yëg ne luqmaan yàlla moo jaarale baatam ci moom ngir mu wax ak jeunesse bi lan la doon wax ak jeunesse bi mooy li ma fi lim sànq kan mooy sunu borom nan lañ ko war a jaamoo ma bëgg indi cinq points yoo xam ne nag xam naa ne du xaj ci émission mais dinañ ko développé képp ku ñuy topp incha allah cinq points yooyu di nga ko déglu ñu tasal la ko benn par benn ba bu ëllëgee boo jógatee jëm ci safaan di nga xam yow fan nga war a teg sa tànk cinq points yooyu bi ci njëkk mooy nga xam kan mooy sa borom borom bi la bind ndax yàlla ba mu wooyee luqmaan dafa ko waxiyu mu wax ak doomam waaye doom ji mooy kan doom ji mooy ñun doom ji mooy man doom ji mooy yéen ndax alquran waxul rek di saa pour ñu xam li muy wax ñun ndaw ñi ban cër lañ ci am moo tax wa iz qaala luqmaan li ibnihi wa huwa yaizuhu ya bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim muy doom adduna boo ci nekkee di gis lu ne dinga nga dégg lu ne di gis façon nit bu ne di gis borom xam-xam bu ne kii jël xam-xamam di ci jëriñoo nit ñaa ngi ci kii jël ay tarixam di ci jëriñoo nit ñaa ngi ci waaye bu boobaa yow day benn kàddu laa lay wax ak lu mën a xew ay ngalal jeunesse bi ak lu mën a xew laa tushrik billahi nañu xam ne yàlla kenn rek la loolu benn point la boo xam ne dinañ ko développé bu baax indi ci ay leer yu baax indi ci ay ay alquran yoo xamante ne nii ci biir émission yi di ñëw kenn ku ci nekk di nga xam foo ci teg sa tànk ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين القرآن أي wax xoolal bi mu paree ne yàlla teg leen ko fële du moroom du kenn ku ñuy utal bokkaale du kenn ku ñuy utal dend moo leen bind moo leen moom ba muy wéet ak yéen ci seen biiru wayjur kenn fekku ko ci ba mu ci paree lan la ci teg mu ne bu ngeen paree ci seen borom bi leen bind seen ñaari wayjur wasay naa na ngeen rafetal jëme ci seen i ñaari wayjur def ci ñoom ixsaan muy lu rafet sa diggante ak ñoom ñu ne ko lu tax mu ne wa fisaaluhu nii nampal nañ leen ñaari at waaye itamit ëmb nañ leen wax xamalathu wahnan ala wahnin ëmb nañ leen juróom-ñeenti weer yoo xam ne kenn fekku leen ci du sëriñ du kenn ku fekk wayjur bi ëmb doomam benn sëriñ mën ci dara lu dul borom bi la bind ak wayjur wi daj coono bi moo tax waxtu wu nekk nag fa foo mën a jëm ak koo mën a doon bàyyil xel ne gannaaw yàlla sa ñaari way jur la jeunesse yéen laay waxal tey yéen laa bëgg ñu toog waxtaane li nga xam ne moom la ñu yàlla boole muy téereem bi mais ñu waxtaan ko ci jamono ni muy doxee ak li ñu war a mën a te li may wax du sama waxu bopp du waxu yonent bi yonent bi daf ko jàllale rek waaye waxu yàlla la subhanahu wa taala moo wax ne dëgg-dëgg lii mbir tey mbir moy bo noppé ci jox ma sama cër man mi la bind te kenn fekkuma ma ci bala nga jël kenn di tek sama kanam wala ngay jël kenn di tek ci sa kanam jëlal sa ñaari yoy jur yi nga xamné ne la ëmbon juroom ñenti wër coono bu nekk daj na len ci bës ñew ñu né tay ñu faatu muy lu miti nga xamné ne sëriñ bu né wo nañ ko léemu nañ jinn bind nañ ordonnance lu né ngir lan ngir sa bakkan muccu yalla néna na coono boobu way jur daj ngal la yow dom bul ko faté mu ne bàyyi ko xel anaskur lii fàttaliku lii wali walidayya sa ñaari wayjur fàttaliku ci yàlla ngeen di dellu ilayya ci yàlla rek almasir mooy delluwaay bi jëmee ci boppam ku dul ne bés dana ñëw dinañ dellu ñun ñëpp ci yàlla moo tax boobu mooy deuxième point bi boobu tamit dinañ ko alquran yoo xam ne benn bu ci nekk méngoo ak li ci yàlla wax indi ci ahadis yoo xam ne méngoo ak li ci yàlla wax bi mu paree ci way jur indi yonent bi sallallahu wa andi yàlla mi nga xam moo ñu bind lan la ci teg mu soog a yoonu sëriñ moo tax demee ci sortu luqmaan lu war lu ñu war di jàngale la mu ne tabi anaaba ilayya suma ilayya marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun yàlla nee na topp leen yoonu topp leen tarixa ba nga xam ne sabila yoon mooy tarixa man ka nga xam ne sëriñ ba nga xam ne ana ba ilayya jëm si na ci man yàlla kon bu leen topp sëriñ bu leen di jëmee ci boppam de bu leen topp sëriñ boo xam ne ay problème yi boppam bu ëllëgee mu ne yàlla maa ngi nii lu la neex defal te bëri na fi kon boobu mooy troisième point bi kooku tamit dinañ ci ñëw dinañ ko développé bu baax bañ gën koo xam mu ne nag woy jur wa in jaa adaka an la an tushrik bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa saahibuma fi dunya maarufa moo tax mu ne lenn rek la woy jur mënalul doomam mooy woy jur woo xam ne day bokkaale yàlla doomam mu ne boobu moom yàlla nangu ko waaye lan lañ ci teg muy li ma gën a intéressé ci wax ji nga xam ne tey foofu laay tënkee sama waxtaan lan lañ ci war a teg mooy la mu wax Luqmaan la mu wax doom ji ci wërsëg ñu xool ne jamono bii ñun suñu jeunesse bi yëpp kenn ku ci nekk tey ma tekki rek tey lépp baax te pourtant adduna mënuñu xëy lépp sotti ci benn bés métti na nag ñun ñëpp xam nañ li dund ñun ay jeunes lañ xam nañ métit bi parce que suñuy état yi taxawuñu taxawaay bi ñu war a taxaw kenn ku ci nekk sa bopp rek la ñor ak ñi la wër waaye xalaatuñu seen jeunesse su ëllëg waaye yow jeunesse bi bu la état xalaat bu la xalaatul yow nga xalaat lan ngay def ëllëg ngir bu ëllëgee nga mën a amal say jur njëriñ waaye nag bu fekkee ne da ngaa dem dee ci géej gi di nga leen yóbbu yokku naqar boo xam ne mooy gën a métti foofu naqar bi nga nekkee woon ak ñoom ku ne xam ne jur ni mu mel ci doom yaay dafa bëgg doom ñu yërëm sunu yaay yi ñu yërëm sunu papa yi ngir lan ngir ñu mën a xoolaat sunu doxalin dama wax ne li passé de waxuma ko waaye jamono bi ñuy dund nii nii nii képp koo xamante ni yaa ngi ne da ngay dugg si gaal yaa ngi dem tooñ nga sa bopp tooñ nga say wéyjur parce que yaa ngi gis rojo yaa ngi wax te li ñuy wax yëpp li ci ëpp mooy dee nañu rek ngay dégg kon mbokk yi nañ leen dal yàlla moo waxoon ne ci alquran foofu laay jëm si muy aaya bi xam moom la yàlla waxoon luqmaan mu wax ko doom ji mooy yaa bu ne yow sama doon in innaha naka wërsëg إن تكن مثقال حبة من تكن في شهرات أو في سماوات أو في الأرض يأتي الله التي في القبير يلا نوانا يو سما دوم لقمان موي وقت بلا من يسون برم نكو يو سما دوم ورسك سو ورسك su fekkee ne benn pepp la yàlla jox war la koo jox mu nekk ca dun ba bu ñuy wax dun mooy lu mel mu ne wala mu nekk boog doj bu gën a kawe montagne bu gën a kawe sa wërsëg nekk foofu mu ne wala boog mu nekk juróom-ñaareelu wala boog mu nekk ci juróom suuf yàlla nee na bi biha dinaa la ko andil ndax man yàlla latiif maa leen bëgg latif maa leen ñeent latif da ngeen a xamul rek da ngeen a yàkkamti rek latif maay ki nga xamante ne nii nekk na ci man wërsëg woo xamante ne wa ma min daabatin fi l ard ila ala allahi risquha yàlla nee na sa seen wërsëg maa ko yor bu leen bu leen bu leen bu leen braver nañu fexe ba jël alquran def ko muy sunu dund ndax buñ ko defee muy sunu dund rek dinañu mucc ci coonee adduna bés buñ ko defee tax yàlla waxoon nañu ko nee na stress yu bari yeeg problème yu bari yi mooy ñàkk a jël sunu tànk teg ko ci alquran mbokk yi kon yaakaar naa ne émission tey bi foofu la ñuy yem waaye bu ñu fàtte ne nag juróomi point lañ fi. tinkar ñi ba kenn ku ci nekk xam ci lu ci sa cër bu ñëwaate ci yeneen jotaay insha allah rabbi ñu ngi leen di balu àq di leen ndokkeel ci juma ji yàlla na yàlla nangul ñu lépp luñ ko jaamu di gërëm sama technicien yi sëñ Fallou ñu leen di gërëm bu baax di gërëm mustafa di leen ziar bu baax di gërëm bépp képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan yàlla na yàlla defal ñu jàmm ba axiru dawaana anilhamdulillahi